bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wasallama tasliman mbokki jullit yi nga xam ne ñooy seetaan ànd ak di déglu Cherif Dabakh TV man seenub jaam seen taalibe Cherif Ibrahima Aidara At Tidjani joxe yóbbante bii jëlee ko ci Cherif Maamin Aydara ak tafsir Abdourahman Gaye samedi bi may jeexal émission bi ma doon def yéen ñëpp dégg ngeen ma ne euh, samedi bii di ñëw moo di Ashura dama ci juum ndax Ashura boobu mooy waa Màkka ñoo jàpp dafa am tuuti décalage suñ diggante ak ñoom mooy niñ dëppee woon dëppoo woon ci tabaski bi dëppoo wuñ ko ci tamxarit bi senegal suñu sëriñ su baax si fi nekk dalee ko ci tiijaan murit xaadir laayeen ñoom ñëpp jàpp dañoo jàpp ne tamxarit bi pour leeral rek mooy tax ñuy wax tamxarit bi ñoom ñun senegaal lima wax suñ kilifa diine yooyule muy tiijaan murit xaadir laayeen dañu jàpp ne samedi incha allahu la lekk cere yi pour mu leer dimanche mooy ñaan gi maanaam samedi ci guddi mooy guddi cere yi dimanche mooy ñaan gi buñ xëyee suba nag incha allahu man Chérif Ibrahim Aydara At-Tijaani ak Chérif Maamin Aydara ak Tafsir Abdourahman gay à partir de midi dimanche ci lañuy dem ca 2STV def ñaan gi nga xam ne mooy ñaanuk tamxarit def ko en direct incha allahu taala ñépp di ko seetaan mu di dimanche 2020 dimanche 30 août 2020 à midi incha allahu ca 2STV bi xam naa lu tege ci midi rek tuuti ci la ñuy tàmbali ñaan gi di ko wax àddina bi yëpp di ko àndandoor ak ñun ci ndigalu suñuy kilifa incha allahu taala ñu ngi koy e, wax mbokki julit yëpp ku ko yàlla mën loo nag bu boobaa nga jàpp ba set rek toog yor sa kurus ñu àndandoo ñun ñëpp di ko wax suñ paree ñu teg ci nag ñaanuk cheikhul xaaji abdul aziz bi nga xam ne bu xat-xat mosaan am aki jafeeñ jafeñ mu mu daan ko def ñëpp di ci topp bu boobaa it inchaa allahu taala daañu ko wax toftal ko ci ñaanu tam xarit bi nga xam ne ñëpp dañ koy waxandoor ndax yàlla wàccee jàmm ci àddina bi warngal këpp te jiital ci suñu réew mii di Sénégal ak réew sous raison bi yëpp ak mboolem fu jullit nekk ci àddina bi ak ñi dul jullit sax ñëpp am jàmm rek ñëpp am jàmm loolu rek lañ ci bëgg ñëpp am jàmm yàlla yëkkati fi mbas mii mu di covid 19 bi yóbbu ko ci géej gu kenn dul taqee ilaa yawmi yubaasuuna delloo si fi jàmm ak salaam ak wërsëg ak xéewal ak naataange ak barke yàlla bokk ñu ko defal ci barke suñu mag ñu baax ñi tëdd ci réew mi yal nañu ko yàlla boole defal ñu yegg ci ak jàmm incha allahu ñu ngi leen di jox rendez-vous yéen ñëpp jullit ñëpp dimanche incha allahu taala mu di 30 août 2020 à 2STV à partir de midi incha allahu taala ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wax déwénati di leen ndokkeel di ñaan yàlla yal nañu yàlla may ñu fekkee ko nigi ni déwén yàlla bu yàlla bu ko kenn wuute te déwén yàlla na dàq ren su ñam su nammee ñaawit yàlla na dàq ren ñu ànd ak wér ak wérle mucc ak mucc le ak xéewal yu yaatoo yaatoo yaatu ak wërsëg yu yaatoo yaatoo yaatu ba kenn ku nekk loo bëgg a faj nga faj ko ko bëgg a dimbali nga dimbali ko lii moo doon e, yëgle bi nga xam ne bëggoon naa ko yëgle maa ngi ciy teg nag ni incha allahu waxtaan du am samdi comme xesoon naa ko wax ba noppi rek samedi bii di ñëw waxtaan du am ci Cherif Dabakh TV waaye ba ca topp incha allahu dina am ndax ñun ñëpp dañuy waajal dimanche bi ca 2STV lii moo doon yóbbante bi nga xam ne bëggoon naa ko jottali téléspectateurs yi seetaan Cherif Dabakh TV yëpp maa ngi leen di nuyu di leen wax wa an wa kullu aamin antum bil xayr wassalaamu aleykum wa taala wa